moom moo ñu wan kanam ñu ngi ñaar mbokk yi il est 19 heures moo jot arbitre bi arrêté na combat bi bëriwu leen Abou Ndiassé numéro 2 Abou Ndiassé turandoo bi moo ko indi si di jàmm gën ma nga ca biir ak xale jàmm gën yi waaye bu baabu Malika ah ndeysaan gis naa fa bulldozer xoola Bulldozer xoola xale ya xoola Bulldozer fa mu nekk fa mu toll moom ma ngi bëri combat bi ci biti ndaysaan ñu ngi lewtoo ndaysaan yaan ñaay mboroo di njaay laale baaxu góor la ndaysaan ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi Leewtoo ba tey waxu leen ni woon lii nag seen bu yàgg bii nag lii jeexal na combat bi jeexalu ko de waaw waaw lii lañ soxla round d'observation lamb ja jeex jàppante nañu runkum daje booy Malika bu baabu Malika ak Abou Ndiassé numéro 2 Abou Ndiassé numéro 2 noonu Abou Ndiassé numéro 2 sëkk na ci keñu li jàpp na. ndeysaan ndeysaan ba tey ñoom ñaar ci diggi géew bi monsieur le maire Issakha Diop monsieur le ministre Issakha premier magistrat de la commune de Pikine Est ñu koy nuyu bu baax di nuyu monsieur le maire Ablaye Diop le premier magistrat de la commune de Guinaw Rail Sud ñooñu ñu ngi liggéey ci social rek la ñuy dox ñu ngi liggéey ñu ngi defar dëkk ba nu dëkk ña ngi fay jéem dara ña ngi fay jéem dara loolu la réew mi soxla loolu la réew soxla ci assainissement ci pavé yi looyu dafa am solo pavage yi léegi foo dugg ci réew mi rek gars yi ñu liggéey liggéey ba solo loolu dañ ko soxla ci réew mi moo tax ñi ñi ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi nanu jàppale réew mi bu baax a baax a baax réew mi sonn nanu ay goro fi dëkk mënuñoo yuuxu ñi mën a yuuxoo ngi yuuxu ñi mënta yuuxu toog ñi mën a yuuxu di leen yuuxul ndax réew mi métti seer ku doon dépense woon junni léegi ñaari junni ngay dépense woon mbaa ñetti junni waa lii méttiwul na de nañ ci wax nañ ci wax balaa muy dégénéré balaa mu yëpp doole jàppante na ne ñoom ñaar. ndeysaan jàppante na nañu ñoom ñaar ba tey ku ci ne yaa ngi ne teg di déglu sa morom bi fekk nañu bëri bi du mën a am ndengeñ day tëj bëri waaye diggante Sa Thiès ak Reug Reug war nañ cee wax combat bu ne jaar na fi Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang barki dembaloon 1er ana mu jeexul la ilaha illallah ñu xeex moo tax nañ koo rafetal bëri ko ci fair play bëri ko ci jom bëri ko ci ngor taaral bis bi taaral lamb ji te xam ne lamb mooy suñu culture xam ne lamb mooy suñu sport national jarul xeex jarul xuloo jarul sànnante xeer ndeysaan ñi ngi xeex ñoom ñaar li cooy liy bari bari bari le jour du combat Sa Thiès ak Reug Reug rek ñoom ñaar dong ñooy nekk ci enceinte bi ku ci nekk bu bés boobaa la nga liggéey moom ngay indi ndax lamb dootul ay rêve ay réalité la ay réalité la man ak yow ay wax de <laughs> mais tu parles avec le griot du peuple quand même ni ñoom Abou Ndiassé numéro 2 ndeysaan Abou Ndiassé numéro la laa lan nga bëgg noonu Abou Ndiassé numéro 2 ak ki nga xamante ni moom mooy booy bu baabu Malika mais bu baabu Malika tamit ngeen moom li diis na de lii arbitre bi arrêté na combat bi am nga ñaari avertissement bu Babou Malika ñu ngi lewtoo ñoom ñaar Modou Baye Fall promoteur bu mag bi Modou Baye Fall lan lañ mën a xaar ci moom promoteur bi. waaw Baye Fall ñu ngi lay ziar di la nuyu di nuyu waa Bantamba TV bi yëpp bientôt rek du yàgg dara incha allah. dinañ uh-huh. gisaat Mour Baye Fall. am nga journée wala amoo journée. non amaguma nag mais ñoo ngi ci démarche yi comme que Iba Mar tijji na dinañ dinañ def le tout incha allah pour taxawal. waay laahi la laa ñaari xale yi waaw waaw waaw waaw Abou Ndiaye seen numéro 2 waaw ñoom ñaar eh ñoom ñaar seen seen seen xeex bi metti na de ndeysaan Abou Ndiaye seen numéro 2 ak bu Babou Malika. Abou Ndiaye seen numéro 2 booy ma bu Babou Malick laay laay la laa wëndeel laay laay la laa waaw waay bët laay laay na ko laay lu xew lu xew lu xew arbitre lu mu wax da leen di woowaat drapeau kolo kolo ngi noonu wala drapeau colorado waaye yow booy booy yow booy Abou Ndiass numéro 2 xanaa da ngaa sonn indi nii di la ci loxo di leen di bala xew en am nga entraîneur bu baax booy bi Gabar moom mooy indi Liss Ndiago booy bi moom mooy indi Laurent booy bu doy waar la booy bi ndaanaan la de Gabar seen mag la seen mag la seen mag la Gabar xool ko Gabar moom moo moo leen di indi moo leen di indi ndeysaan arbitre si waat na combat bi ndeysaan arbitre na combat bi. ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñaar laay laay la xeex raak xeex Abou Ndiassé Abou Ndiassé xeex Abou Ndiassé waaye abu Ndiassé Abou Ndiassé bu Malika laay laay la laa Abou Ndiassé Abou laa ilaaha illallaah waay ñaari xale yi waay waaye grand combat biñ ko xoolam mat na. daa for doole. ah borom ngeen ma lu daa for doole Abou Ndiasse 2. moo tax saa bu ko waree ndoom rek doole moo koy permettre. moo koy bu am Malick. waaw. laa ilaaha ñaari xale yi def nañu jaloore tey bëri nañu xeex nañu grand combat bi moom euh, Alboury ak Jara 2 ñoo ko ndeysaan drapeau Colorado laay laay la laa laay laa waaye Abou Ndiasse numéro 2 ndeysaan ñu ngi bëri lu neex Abou Ndiasse numéro 2 saa boo bëttee laay laa waay laay laay la laa waaye ndeysaan arbitre arrêté na combat bi laay laay la laa waaye ndeysaan Abou Ndiassé numéro 2 demal seeti Ibra Bakhoum Ibra baaxum lay seeti ndeysaan Ibra Bakhoum c'est mon ami docteur bu mag la ci ginnaaw raay jeexal waat na combat bi diggante Bouba bu Malika ak ki nga xamante ni mooy Abou Ndiassé numéro 2 ñu ngi ñaar drapeau dogo bu mag bi dogo faal ak maa wa jor Kumba Samba yaa jaloor Colorado ndeysaan maa sama mbokk la ndeysaan ñu ngi lewtoo ndeysaan raak waaw waaw raak raak raak raak ba génn si eh, eh. lii la yow waaw mais ñoom ñaar ñii moom lu xew yow ñaar ñii est-ce que ñoom ñaar eenalante wuñu yow ah laa ilaaha illallaah day seetiwaat Ibra Baaxum bilaay bëre métti na ñii loo leen fay jar na ko la coon woon baaba yi lemba ruñ ko fay jar na ko mais dëgg la xoolal sedd bi ñu lay dóori kurpañ bu baax bu Malika moo ñëwoon kanam arbitre bi na combat bi ñu ngi léewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ngi lewtoo ndeysaan bu baabu Malika laay laay la laa yóotu na tànk ba waaw waaw Abou Ndiassé numéro 2 bëggatul dara ci combat bi bëggatu dara bëggatu ci dara waaw waaw booy bu baabu Malika daan na waaw waaw ndeysaan booy démérité woo de jàmbaar dëgg Toubabou man ka champion nga gaynde nga tey bëri nga bëri nga ba daw kii champion la barki maam serafal billaay wallaay taalaay comment luñ ci daj billaay wallaay Abou Ndiassé daju ko day xaajal daju ko Abou Malika benn baa dañ maa yónni yaakam dema combat bi nii la mënoon a demee tey barki yàlla foofu mu metti lii gën doon naaw xamoon naa ne combat bi nii la mën a demee. maa moom maa bërekat la may bërekat. waaw moo tax. mais damaa gis kële yi mu yi mu yi mu fente ci biir combat bi dafa bari. te kële moo ne mënoon na xaas mënoon naa xasee fekk si làmb ji teel a maa teel a sama bopp ne ma naxan ne moom loolu moo tax ma lambaay yaa ngi lambaay randu baa ngi ci mun maa jooja degen ma cangoo nan lu rëy la maa jara baak ñoo jara falak ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo di waagu ñaay gisal